Euh, ginnaaw bi sa mbër euh, bëreeg Ama Baldé yàlla def li muy def tey Papa est euh, doonul gën mu toog Fass wala mu toog Parcelles. mais parce mais Papa mais doomu Fass la Papa Fass mooy écuréem yàlla moo dogal nag jamono xew gox bi mu dëkk dekk Parcelles Assainies di booloo ñoo yëpp seen biir. mu ànd ceeg ñoom te mooy seen doyen loolu moom ñun bañaloon ko ko mais nag c'est c'est le bon moment pour ñu ne ko nag ah loo ànd ak ñëpp ñëpp waa parcelle tamit su bisu combat ba jotee non nañ dem toog dox seen soxla ñoom. loolu du sa soxla yow loolu moom je pense que ne la prochaine fois mooy am terewuñ ko moo nag kenn naan ak Modou Lo naan ak Franc naan ak Gora Sox naan ak képp ku mu bëgg mais bis bi nga xamante ne moom lay bëree ñu ne Papa Sow bëree dimanche non dañ koy demandé mu ñëw ànd ak ñun à 1000 pour cent ñooñu dem toog seen kër ñu dem ak moom parce que ñoo koy ngemb ñoo koy yóbbu. parce que keroog bi muy bëree àndul ak waa waa la àndal te préparation bi dañu gis face culturellement. non non préparation bi sax booy xool c' était entre les deux c' est normal ah en tant que directeur technique ñoo ko ñoo ko ñoo agencé. ce sont des amis liggéey ensemble le matin liggéeyal ak ñoom le soir nga ñëw liggéey ñun liggéey naa ñun la matin le soir liggéey naa ñoom le matin te yu ci bëri nag sama sama supervision la nag dem naa fekk mu entraîné ba tey ba deux jours du combat assisté naa ay séances d' entraînement yu mu def ak les coachs de Modou Lo c' est pas méchant quoi jamono moo toll foofu jot na mu dellusiwaat na ne rëcc rëccu nag ñu won ko ci bopp na ko eh nii la mu defee noonu je pense que c'est pas compliqué.